في التواون soxna si ñoo ngi lay nuyu maa ngi leen di eh, eh, tey jii tamit nga tooge ci ñaari position mu di doom ci soxna Aida Sy bu maam da baax nekk itam doom ci xalif général di ñaan sëriñ Ababacar si eh, tey ji ginnaaw bi ñu wootee bis bi ban yëg-yëg nga am fàttaliku lu bare bare ci sama maam yi fi jaar wax dëgg yàlla te ma am lu ma ci jot a fekke ma gis doxalin bi dara teg dara wutalewu ko di ñaan ñoom itam yàlla may leen fan bu gudd bu ànd ak wér ba li ñu taxawe woon ñu taxawee lu ko ëpp ci darajee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal ñu gàmmu jàmm ak salaam mu jaar fa mu daan jaar incha allah tey jii lan ngay digal mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo ñëw ci dëkk bu sell bi ngir màggal bis bu tedd ba mel ni gàmmu gi nga xam ne moom lañuy ñuy def fii ci Tivaouane. xanaa daaneel daaneel seen yaram rek mel na sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam moom la ñëpp di wut kuy wut yàlla doo sonn ndax loo yàlla moo woote ci guddi màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam Alaaji Maalik di ko di ko ngénte xaw ma sax naka laa ko mën waxee. di di màggal guddi gi kon di màggal juddoom kon nag léegi ñuy ñaan ci yàlla mi nga xamante ni ana naka la sax. ni kenn man. Seydina Muhammad sallallahu alayhi rek laay tàntal. léegi nag képp ku fi rot si loo yaakaar wala loo fi bëgg. yàlla defal lu lu kawe sa njoot te mu ànd ak jàmm yàlla defal ñu jàmm. gàmm gu sedd guy. gàmm ànd ak jàmm bu bare wér ak sutura. bare xéewal bay génn ceeg alhamdulilah rab ñu teewaat ko at yu bare bare te kilifa yi jiite ko. te yàlla defal leen wér ak fan bu gudd. léegi ñoom itam wax dëgg yàlla fa ñu teg seen wayjur yi ak kilifa yi fa ñu tegoon seen tànk ñu ngi ko fa teg yal na yàlla def ñun itam ñun ñu topp seen gannaaw ñun itamit bu ñu mujjee puso bu mu réer yàlla may ñun itam rafetal googu ñu roy ci ñoom ba mën koo def te ñu yàgg fi loolu ñu ànd ko ak ñoom ndax rafet na ba pare macha allah yàlla bu cet tàbbi soxna si ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. tey ñu dikk fii ci kër gi euh, ndax rek mën nañoo xam ci yan anam la soxna si di waaje gàmm gi nga xam ni moom lañ jagleel yonent bi alayhi salaatu wa salaam. waaw gannaaw bu ñu santee yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu-sang yi ki nga xamante ni moo waral ñuy def defin yi di ñaan yàlla rek di la xamal ne soxna si moom ci lii la judd ci lii la yaru ku ni maam Abdou Aziz say sa way jur ku ne xam na ni ci loolu nga judd bokk ak Serigne Baye Mansour mi koy denc ku ne xam na ni kon ñoom ci loolu lanu ñu judd maam mën maam mooy mooy papay Serigne Bay Mansour maam abdu mooy papay ayda kon ku ne xam na ni ñooñu ci yonent bi rek sallallahu alayhi wa ci lañ juddu moom la ñu xam moom la ñuy waajal bisam di ñaan yàlla nag lu luñ ci def yàlla na mel ni daaw bu da bu bu naree ñaaw yàlla na mel ni daaw te ren dara du ci sikk bu neexee yàlla ndax boroom guddi gi incha allah mooy couleur guddeem. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax. ndax mën noo xam na rek ba xam ndax euh, euh, préparatif yi ngeen daan def chaque année tey jii fan la toll. gën a yokk incha allah di ñaan yàlla yàlla bu ci dara échec te ki ñuy waajal mbiram ku koy waajal dara du ca échec ndax moom moom rek lañuy màggal mu yonent bi sallallahu alayhi wa raxuñu ci dara raxuñu ci kenn moo dooy waaji waaw. Euh, ñu nekk ci nu ma ko noonu laa ko mën a tuddee sax kër maam baax ndax euh, euh, doomam lañ fi fekk tey moom naka la daan waaje gàmmu gi fii ci Tivaouane. xanaa ni ko maam Dabax daan waajale maam Dabax bu jub see daf daan wax ni wàcc leen lal yi te balaa ngeen a wàcc lal yi na ngeen wàccee kanam yi bu ngeen wàccee kanam yi bu ngeen paree sog a wàcc lal yi togg leen jox nit ñi ñu lekk. boo toogee boo taxawee fi mu nekk nii ca waañoo presque suñu ñaar fukki mbana mat na xam nga kon kooku te tey di tëjtal burdu bi nga teg loolu ku ne xam nga ni yaa ngi waajal gan soxna ay génn néegam ñun ñi néeg nekkatuñ ci saal nekkatuñ ci dara ñoo ngi ci waañ rek di togg di jox gan ñi moom la ñu fasal yéene ba keroog guddi gi di ñëw ñu def ak noonu guddi gi teral Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu jeex rek du jeex sax moom Seydina Muhammad ku koy teral doo pare sangu-sang yi ku koy teral doo pare waaye li nga xamante ni moom la fi seen maam bàyyi ak seen baay ñu fas yéene cee nekk rek ba bis ba. Euh, ku tudd soxna Aida sa xel dina dem ci soxna maam Faati Mbàkke ndax bis na ni laata gàmmu gi ñëw am na ay journée set setal yoo xam ni organisé woon na ko fi ñu gis ni soxna maam Faati Mbàkke da ciy dem ba jeex ndax xam ni bis bi bisam la dëkk bi dëkkam la tey ndax mën nañu xam euh, relation bi nga xam ni moo dox ci diggante soxna maam Faati Mbàkke ak soxna Aida si. waaw loolu boo ko boo ko dee laajte day yomb ndax da xam ne Bambaay Maodo Maodooy Bamba loo tax boobu diggante day yomb moo tax maam mooy soxna Ayda soxna maam Faati mooy mooy mooy mooy ay mooy soxna Ayda mooy soxna maam Faati boo gisee keroog bi ñu toogee dend boo leen xoolee sax da nga defe ni ñoo bokk ndey ak baay xoolal ni ñu jegee xoolal ni ñu nuroo xoolal nañu toogee seen toogaay bu jekk bu yiw bu rafet ba boo ko xoolee rek sa yaram day daw nga xam ni deret ji benn la ah, wane nañ ko ñoom ñaar ñëpp yiw toog rek le ñun kay ñoo fa nekkoon di wiir wiir yi xool waaye ñoom nañu sëgge ni nii rek ni janab siggi wuñu ba nan loolu ku nu yar rek ko man kon loolee di image bu rafet boo xam ni day gàccaal ñi nga xam ni euh, ñooy wax ci diggante euh, maam Dabakh ak ki nga xam ne moo si di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ci indi ay tëkkalante kon image boobu day mel ni day gàccaal ñi nga xam ni ñooy ruube ci suuf. ñooñu duñu nit Pape Abdou Lahat daf daan jël si sagari njaamam maam Abdou di ko duyal ay maal ak fas ak i gileem ak lu nekk di ko jox. ah mu ni sama sagari njaam laay jël si kon xam nga ni boobu diggante ku ca nekk di wax dangaa réer jàngoo tubaab bi xamula nit ñu baax ñi xamul la da ngay tañaku di wax rek te doo xam fooy teere ji nit nag bu xamul fu mu teere ji jërta waxal waaw ñu nañ leen bàyyi ñuy wax rek waaye ñi xam duñu wax ñi xam moom ñi ngi noppi rek jàpp seen jàmbur li ma la ne rek bàmba Bamba Bambaay Maodo loolu moom bay boo nga xam ni mooy wéy ba. kon kon kon mën nañu jàpp ni euh, li nga xam ni moom la Mame Dabakh doon dox ci digganteem ak waa Touba di waa Kër Cheikh Ahmadou Bamba mën noo nemme tànk yooyu nga xam ni fa la way juróom wu tedd wa radiyallahu anhu tege woon foofu la tege mm-hmm. waaw maam Dabbaax moom ku ne xam ne ni turam dañ cee yokk Dabbaax xam rek la tuddoon tur tur bi dañ cee yokk Dabbaax rek Dabbaax baax gi mu baaxoon moo tax nit ñi dem ba xam ne nit ku baax la ñu yokk ci Dabbaax waaw ayda bañ nañ ko ba dañ bu nekk ay doomam sax dañ leen di dàkkantele ayda da dabbaax man léegi léegi du ci bare bari su ma ko nuyoo sax dama ko naan ayda dabbaax ndax nuru na baayam yaayam itam noonu la meloon di togg di jox gan di yàq Aida li mu nekk daf ko donn ci yaayam doon ko ci baayam yaayam nii la meloon xamul woon lu dul togg yàq jox nit ñi nu lekk dënale loolu la xam di doomu ndar bokk ci nit ñu baax di nit ku baax di famille ba gën ca ndar loolu moo am seen kër nee nañ yaayam papaam noonu la meloon maam am Ahmed Ba yaayam noonu la meloon kon xam nga ne kooku ku mu jur ku ñu meññ noonu ngay mën a mel waaw bay mën Mansour itam noonu papaam noonu yaayam noonu kon noonu rek ngay mën a mel. ñuy ñaanal suñu xalifa bi lu maam Abdou Aziz si toogoon yàlla na toog at yu ko ëpp nu mu rafetee woon yàlla na gën a rafet ndax maam Abdou moom ku ne xam na ni ku mu jur rafetal na la wax nga wax na nga rafetal te sëriñ Serigne mën Mansour mi ngi jaar ci tànkam dara teggeeku wu ci ñun ñi ci biir kër gi ku nu xool xam ne yorees nanu téye na ñun ñoom umu ñi ànd na noog ñun ànd bu rafet noo ngi ñaanal suñu xalifa bi daal yàlla na ko yàlla yokk sutura si yokk teraanga ji yokk lépp daal ñun daal kontaan nañu kontaan rek di ñaan yàlla nañu gàmm ak jàmm ci salaam. tey jii dañu bëgg rek nga dikkal ñu ci euh, relation bi nga xam ni am na ci diggante soxna Aida ak soxna maam Faty Mbacké. relation boobu bu ngeen xoolee li comme li ñuy wax rek laa leen di wax Serigne Bassirou dafa dafa dafa bàyyi Touba ñëw dëkk Tiwaawoon kon dëkk si na ak El Hadj Mansour ku gis photo mu Serigne Bassirou Mbacké gis nga alaaj Mansour mu bàyyi Touba ñëw dëkk euh, Tiwaawoon maam Fatim Mbacké ñu dénk ko sëñ Moustapha Bassirou mu ñëw dëkk ak soxna Aïda ñu bokk bàyyi relation boobu di dox ba nii rek loolu mooy dox la sëriñ ab du daan def Tiwaa Touba di ko doxi ci sëñ di ko doxi ci Serigne Fallou ku ne xam nañ Serigne Fallou fii la bokk hmm? ku ni Mbacké ni Mbusoo bi te ku ni Mbusoo bi ni Tiwaawoon lu dëgg relation boobee rek moo del si ba ci maam Faati Mbacke ak Aïda te Aïda daf ko rafetal lool xam nga Aïda mënoon naa balee lu tudd wax maam Faati Mbacke xam ne moom maam Faati Mbacke ñoo bokk baay moo tax mu wax maam Faati Mbacke mu nangul ko Aïda di jëf jëflanteeg maam Faati Mbacke teraanga bu ne ñun dem nañ ba Poroxaan fekk fa maam Faati ci ndigalu soxna Aïda ci lan demee ak xalifa bi ndax fu Aïda teg tànkam daf ko ànd ak xalifa bi xalifa bi nekk ku baax njabootam gi nekk ku baax mënoon na toog si saalam wax li mu bëgg a wax mais daf ñu wëri ba indi lu ñu maanaam mooy jox nañ cër bi ndax lu ayda baax baax bu njabootam bu nu fakk taloon yenn saa ñu gis suñ bopp de waaye Aïda dafa baax papaam tudd da baax alaaj Mansour ñëw baax muñ ba xol bi seey Pape Serigne Mbaye ñëw ni ko rande ma yéeg ñu faale ñu jox ñu cër fii daal taalu be néew fi xam nga lu ñu def nawle nawle moo waral lii bu ngeen xoolee xam ne lii nawle ko waral bu ñu defan taalu bi dañ ñuy teg fee rek ñuy jëf-jëfu taalu ñoom mag ak rakk lañ ñu def nawle jox ñu cëru nawle nu ànd ak ñoom cëru nawle ñun ñii mënoon naa waxte du nu woo ñoo jiite waañ wi bu leen neexoon jiite seen waañu yaay du def dara te néewul wool Kumba Jóob ak sukay baan kon ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan suñu way jur wi xilaafaam gi mu dund ko juróom benn fukki at ci kanam yu ànd ak wér sans ordonnance nag ànd ak soxna Aida ak njabootam moom it moo xam fu mu bëgg egg yal na fa egg ak mbooleem jullit bu ko ko yéene nu àndandoo ñu dëgg ak képp na ku sant si yal na la yàlla may fan wu gudd nga gunge paas sëñ Mbay ci xilaafaam gi ban di ko woog di wari ci barke Seydina Muhammad ak njaboot gi yëpp nu fekkee ko te tal ko tiwaawaanu fiiha al yumnu lil muttayaa